fii bien entendu ci biir commune Kër Madiabel euh, et c'était l'occasion pour nous ñu rencontrer en tout cas le comité d'organisation euh, est vocable RAHABS euh, mais nous sommes présents également au passage mais it mu nekkoon occasion aussi rassembler aussi les services yi nga xam ne ñoo nekk ci biir arrondissement donc ñu avons en tout cas lépp loo xam ne jàpp nañ ne service la ci biir arrondissement lu mel ni euh, sécurité waxtaan nañ waxtaan nañ ci waxtaane nañu lu mel ni eaux et forêt euh, lu mel ni douane lu mel ni service d'hygiène mais laal nañu aussi amaana aussi ay domaines yoo xam ne euh, donte la amuñu fi représentant mais gëm nañ ne en tout cas même dans le passé aussi gis nañ ko dinañu réagir ba nga xamante ne aussi bés bi dina dina taaru parce que aussi suñu objectif vraiment mooy organiser gàmmu Kër ma Madiabel euh, Medina Niassène ba nga xamante ne day nekk gàmmu bu mucc ayib donc daal ci tënk euh, loolu mooy li nga xam ne moo ñu fi dajale woon parce que comme ni ma ko waxee sànq rek ci service yi nga xam ne bokkuñu newuñu fi mën nañ si tudd lu mel ni wàllu communication xam ne tudd nañ fi RTS tudd nañ fi Soleil tudd nañ fi APS euh, lu mel ni électricité nga xam ne amaana lu ci ëpp Sénélec moom moo koy gérer yooyu aussi waxtaane nañ ko fi Euh, li nga xam ne aussi ba léegi sax ci wàllu communication la mais dafay xaw a laal tuuti service internet aussi waxtaane nañ ko donc euh, lu mel ni assainissement euh, donc yooyu yëpp nekk na ay domaines yoo xamante ne nii waxtaane nañ ko mais du tee comme ni mu waxee rek service yi nga xamante ne teew teew nañu euh, bu ñu paree dinañu defar benn bataaxal boo xamante ne kenn ku nekk dinañ la fàttali li nga xamante ne ni moom la comité d'organisation bi di xaar ci yow. mais ñi nga xam ne teewoon nañ te jël engagement dinañ leen ci biir bataaxal boobu dinañ leen fàttali seen i seen i engagement ñi fi teewul aussi li nga xam ne moom la comité d'organisation bi di xaar ci yow. dinañ ko def ci bataaxal fàttali la ko ba nga xamante ne dinañu mën a yombalal li nga xam ne mooy suivi bi incha allah. en tant que chef de l'exécutif local yow ban jàngat nga def si ni nga xam ne noonu la réunion bi amee ak promesse yi nga xam ne moom la chef de service yi joxe. waaw réunion ni mu demee ah, parce que fag naa ne ñun ñëpp fekkee nañ ko euh, suñu objectif premier moo nekkoon en tout cas lantam euh, ñu tàmbali ko ci jàmm salaam jeexale ko aussi ci jàmm loolu aussi gis nañ ko. ni ma ko waxee rek ci sama njëlbéen kàddu service yi fenn won yeb jël nañu ay engagement te nek na ay engagement yo xam gëm nañu xam nañ bu baax ne kenn ku nek man nga matalé engagement yoy non parce que du c'est pas la première fois man personnellement daw fekk na ma fi euh, engagement pratiquement euh, doléance amna yu bëri yo xam ne ñëwoon na daaw dellu sawaatan euh, engagement yi nga xamanteni aussi service yi nañ ko daw te matalé won ko pratiquement même engagement nañu jëlat donc mu nek ay engagement yo xam xam nañu ne dëgg-dëgg ñii li ñu jël nii mën nañ ko matale et c'est ce pourquoi ma wax ne suivi bi dañ koy def ak le le comité d'organisation muy si parce que ay engagement yu ñu war a mën a def la ci wàllu service yi la euh, ñi nga xam ne en tout cas ñoo nekk suma notorité autorité euh, loolu du du du loo xamante ne lu bees la ci ñoom effectivement dañ koy coordonné ak ñoom ànd ko ak ñoom ba nga xamante lépp li nga xam Euh, doléance la yu fi jógee ñu jël ci kanamu raxabs ay engagement ne lii dinañ ko def te ñu gëm ne xam ne mën nañ ko matale loolu dañ koy def en tout cas loolu moom bu si yàlla àndee euh, niñ ko defee woon daaw je di dama koy répété waat ren également incha allah. Euh, dëgg-dëgg ci wàllu inquiétude yi nga xamante ne am na ay délégués de quartier wax nañ ko jàpp nañ ne dina mën effectivement combler. en tout cas déficit yooyu noonu parce que effectivement am na ñaari quartier yu ñu tudd fii yoo xam ne euh, jamono événement bi dëgg-dëgg dañuy sentir en tout cas un semblant d'insécurité te loolu it lu jël en compte bu baax a baax parce que c'est des c'est des informations yoo xam ne aussi ñu nit war nañ ci war nañ ci liggéey dëgg-dëgg en tant que en terme de sécurité ba nga xamante ne population képp ku mu mën di doon ak fépp foo mën di nekk bés boobu noonu wala jamono boobu effectivement nga sentir ne sécurité bi doy na sëkk. monsieur le préfet benn point rek mooy da nga ko soulever mu am solo mooy ñu jéem a promouvoir li nga xamante ne mooy presse locale bi nekk fii ay jeunes nekk ci di oui je l'ai dit tout à l'heure hein, ci sama sama propos ci ci ci réunion bi. Euh, c'était l'occasion pour moi véritablement aussi me remercier waat aussi la presse locale comme vous l'avez dit Euh, parce que ay ndaw nañu ay xale nañu parce que xool même si c'est vrai que voilà vous êtes derrière les caméras mais la réalité est ay xale rek ay ndaw rek ñoo fi nekk mu nekk ay ndaw ay xale yoo xamante ne li ñu fi indi nii ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo ko liggéey euh, commencé ko amaana peut-être ci benn portable bu ndaw ba tey wax dëgg yàlla ñu am arsenal boo xam ne aussi dañ leen koy dañ leen koy nawee euh, donc mu nekk occasion ci man ñu joxe leen en exemple seeni morom jeune seeni morom ndaw yi nekk ci biir arrondissement bi ñi nekk ci biir réew mi ci boppam sax ñu roy ci ñoom parce que effectivement comme ni ma ko waxee sànq mënoon nañu am xalaat bi nga xam ne moom la yenn xale yi am ba commencé dem di di di jël mbëkk mi di dem jaare géej gi naan dañuy dem Espagne mais ñoom gëm nañ ne war nañ mën a des ci réew mi gëm nañ ne war nañ mën a investir mais li ci gën a neex li ci gën a euh, li ci gën a attirer sama attention mooy boo xoolee ndaw ñi nga xam ne ñoom lay waxal ñi ci ëpp ay dañuy jàng soit ay élèves nañu wala étu ay étudiants nañ ñu boole ko également ak seen métier entrepreneuriat mu nekk lox te gis nañ seetlu nañ ne aussi yàqalu leen dara aussi ci seen jàng ñenn yi yàqalu leen dara également ci seen liggéey donc ñooñu pour man bu ñu dajee ci euh, en tout cas ci bërëb yu ni mel dafay baax aussi ñu xamal xamal leen askan bi dafay baax aussi ñu wax leen waaw góor mais dafay bax aussi seeni moroomi ndaw xam pourtant buñu défé comme ñom également kenn ku nekk ci li nga xam japp nga né euh liggéey la mais jaru taxet boko gëmé rek war nga ci mëna a dem donc lool motax vraiment ci bir réunion bi ma profiter si aussi pour remercier leen mais bu baax bu baax aussi wanale leen aussi ak askan bi. sëñ Aliou Barham Niass euh, représentant officiel bu Medina Niassène Kër Madiabel. Ah, président Rahabs. sëriñ bi ah, dañu ngeen ak ki nga xam ne mooy préfet ak mboolem service yi nga xam ne ñoo nekk si euh, arrondissement bi waxtaanee ngeen ay points yoo xam ne euh, jëm ci gàmmu bi Medina Niassène édition 2024. Hmm. mun nga ñu fàttali ci ngeen waxtaanee li nga xam ne alhamdulilah gannaaw bu ñu leen nuyoo euh, jotal leen nuyoo euh, suñu kilifa alxalif Cheikh Mouhamadul Mahi Sëñ Mbaye ñëw nañu tey ci ndigalam daje ak monsieur le préfet monsieur le sous-préfet Samba Adolphe Sidibé sous-préfet bu Wack Ngouna ak mboolem service am yi balaa ñoo jàll ñu koy gërëm bu baax di ko ndokkeel di ko sant ci dalal bu rafet bi nga xam ne moom la ñu miinoon ci moom te mu defaat ko ci ubekoom ci yaatum ak ci feexam déglu li nga xam ne moom la ko indil. Nous, en tant que comité d'organisation bu Medina Niassène Kër nga rassemblement de la Hadra al pour la coordination des événements ñëw nañu ak suñu de sollicitation boo xam dafa jëm ci état bi sous-préfet ñëw na ak un service état bi ci déglu wax lan wax nañ lan ak lan la jox nañu seen kàddu ne incha allah dinañu def lu ñu mën pour amalee ko naka nga xam ne noonu lañ ko bëggee te noonu ñu ko bëggee su amee noonu rek comité d'organisation bi non seulement dana ci bëgg waaye loolu dana joxe mbégteem xalif bi te su boobaa dana ñaan te Kër Madiabel ak li ko wër yëpp dinañu gis njëriñ ci loolu incha allah. am ngeen satisfaction nga xam ne moom mooy doléance yi nga xam comme fii moom du defukaay waxukaay la. soo waxee ñu déglu rek sa soxla faju na ndax kii wax kooku déglu la soxla soo indee ay soxla ci nit ñoo xam ne jox nañ leen doole sañ-sañ ak yelleefu faj ko ñu dégg ko ba pare te jàngal nañ leen lu jaadu ak lu ñu war a faj ak loo xam ne waruñ cee dugg bi ñu ko dégloo ba noppi ñu ne nangu nañ ne danañ ko faj su boobaa dangay am yaakaar wax jooju nag wax laa gum waaye ki la waxoon daaw def ko walla mu def ca lam man su la waxaatee ren da nga am yaakaar ju toll ni ji nga amoon daaw wala ju ko ëpp foofu la ñu tolloogu si loolu yaa si ngeen a jaaxal yoo xam ne ko si débat bi te yaakaar ne léegi sécurité moom suñu jafe la woon daaw loolu nag suñ ko waxee duut wut ne état bi daf ñoo indilu woon ay éléments indil nañu ay éléments waaye contexte bi amoon daaw te monsieur le sous-préfet souligné ko léegi xëy na xat-xat yooyu waraloon na élément yi doyul niñ ko bëggee woon waaye ñu ngi seede par la même occasion nekk élément gendarmerie yi fa ñëwoon daaw sapeur pompier ak ASP yi leen doon dimbale ñun ci suñu bopp seede nañ ne def nañ ba def lu ëpp lañ mënoon maanaam su fekkee ne ñoom téeméer lañ woon def nañ liggéeyu ñetti téeméeri nit loolu nag foog ñu gërëm ci état bi nga xam ne moo leen defal formation bu baax boobu foog ñu gërëm ci tamit seen kilifa hiérarchie gi nga xam ne ñoo leen ebal ñu ñëw taxawee loolu waaye nag sàkkuwaat nañ ñu yokku leen parce que bu ñu leen yokkee dafay gën a jàppani ndax lu kenn nit def su ko ñett lu kenn nit war a def su ko ñett di def dafay métti ci ñoom waaye suñu eggee ci ñu am maanaam lu lu lu lu lu ñett war a def su ko kenn di day métti ci moom waaye suñu demee ba am post bu ne kenn nit wala lu kenn war a def ñu am fa ñaar su boobaa yëf yi mën naa gën a jàppandi te loolu am nañ ci ay dig te am nañ ci yaakaar. alors sëriñ bi ci wàllu këriñ gi ñu ko doon ah, am na euh, ki nga xamante ne moom fi teewaloon am na lu mu ci jot a tënk. waaw xam nga daaw euh, eaux et forêt ñun dañ koo laajoon ne ko dañoo soxla matt ci forêt yi ay camion mu nangul ñu ko waaye bi ñu demee ba sës dëkk ak réew suy màgg dangay ngay màgg xew tamit dafay màgg. léegi soo xoolee concentration démographique bi am ak nit ñi ni ñuy tabaxee dafa dem ba taal matt yombatul parce que tabax yi dafay téye saxaar si te itamit euh, neexul torop ba xew nit nekk ci saxaar ak yu mel noonu moo tax finalement daaw matt mi juñ ko jëli moo tax ren nag ñu opté pour beneen façon boo xam ne jàpp nañ ne mooy gën a jàppandi gën a noppale mooy dem ci ay këriñ maanaam permis këriñ yoo xam ne daf ñuy may ñu dem uti ko ca fam am ci biir réew mi indi ko ci Kër Madiabel pour mu yombalal nit ñi lu jëm ci togg ci wàllu gàmmu gi. tout à l'heure maa ngi dégg yaa ngi wax ñu jëm si euh, comme autorité étatique mm-hmm. yi ñoom su nekkee dañu ñëw directement avec yéen ñi nga xam yéen ay yi. Mm-hmm. ñu ñëw directement avec le maire. Mm-hmm. est-ce que tey tamit loolu du nekk loo xamante ne gangrène un peu yéen ñi nga xamante ne organiser événement bi. waaw boobu waxtaan la rek xam nga ay taalibe lañ ay doom lañ ci sëriñ bi ku xam Kër Madiabel ni mu bindoo da ngay xam ne fii moom li fiy dox foofu dem rek danga fa fekk waa kër Cheikh Sëriñ Baye Niass radiyallahu anhu ci taalibe ci doom ak ci kóllëre gu yàgg. misaal bi ma leen di jox mooy El Hadj Babacar Thiam mi taxaw sama wet nga xam ne moo représenté maire bi kooku doom la mën naa wax ne ñoo bokk bàyyi ci ban anam mooy suñu jur sëñ Barham radiyallahu anhu moom dafa bokk ci ñi nga xam ne seen way wayjur dañ ko ko dénkoon balaa boo génn àddina donc kooku su fekkee moo ñëw toog représenté maire maire bu Kër Madiabel moom mi nga xam ne doom la ci sëriñ bi dafa fekk ne liggéey suñu bëggee mu aw yoon lenn lu ne fu ñu ko war a waxee dañ ko fay waxee te en matière de réunion dajee la pour seet nu ñu def ba mu gën a baax su ñuy seet nu mu def ba mu gën a baax nag lépp lu ñu gis ne mën na koo yàq danañ ko lijjanti ba mu yàqu ba ba du ko yàq waaye alhamdulilah dara yàqoogut loolu ci biir waxtaanu gën a déggoo la pour que bu kenn dëgg tànki moromam muy indi jafe-jafe. benn point lu am solo mooy wàllu ndox mi fii ci Kër Madiabel. Hmm. wax ngeen ne soxla ngeen ay citerne. Hmm. ak yeneen yi nga xamante ne maanaam ay installation yi xamante ne gratuite lay doon. Hmm. waaye loolu am naa lu ñu leen ci répondre mooy dina nekk loo xamante ne day jafe. waa xam nga ñun li li yomb du suñu soxla. ñun li jafe te jub te nit war ko am mooy suñu soxla. ñun communauté de défi lañu ay hommes de défi lañu lépp lu ñu nit wax ne maanaam suñu soxlaa dara du ñu seet ndax yomb na li ñuy seet mooy ndax mën na nekk. réew mi nga xam ne fi la ñu nekk règle yi tënk penc mi ndax loolu dara du ko ci yàq ñun ñaar yooyu mooy suñu obstacle principal mais bu fekkee ñaar yooyu amul rek lépp lu ñu bëgg dañu gis ne dafa valable pour ñu am ko te dinañ ci def bépp itte bu mu laaj pour ñu am ko te yii ñuy def nii ay CLD CDD di ko réclamer. ça ne veut pas dire que état bi def ko état bi ngi ci tous les jours waaye nak këru diine dafa am lu muy jëriñ barab bi mu nekk day am benn jamono mu fexe ba service état bi yëpp focus ci barab boobu liggéey yañ daan def moom la def parce que def CLD taxul ku doon intervenir di commerce ci commerce ñëw di intervenir ci ndox ku doon def sécurité ñëw di def santé mais juste dañuy conjuguer euh, effort yi def ko benn moment ci benn barab su boobaa loolu dafay daal di am njëriñ donc ndox liñ ci soxla flex Flexo li ciy compétence am nee na dana def li nga xam ne ëpp na compétence am wax nañu ñan la nekk seen compétence te que autorité administrative yi à l'occurrence le sous-préfet ak kilifaam yi mu fi teewal li ñuy jëriñ mooy lu ñu bëgg tem jaadu ñoom dañuy teg ci yoon wi te gunge su waree su ñu waree laaj ñu encadré laaj bi laaj ko ci yoon laaj ko ki ñu ko war a laaj taxawuñu bañ am ko donc amuñu benn problème ci mbir moomu jàpp nañ ne gannaaw ñoom li ci seen compétence accepté nañ ko li ci compétence su keneen boobu tamit euh, maanaam kuréel la ku bokk ci état bi état bi mooy ñun ñii mooy yéen ñii donc ku bokk ci état bi sàkku ci kuréelu état bi loo xam ne dañ ko santaane pour ñu def ko jàpp naa ne loolu benn problème waru cee am su fekkee ne lu man a nekk la rek war nañ cee mën a jot loolu lañ jàpp